ak nga waxal ñu ci jeeg yi nga xamante ne daal li ma sama xarit bi waxoon. Mhm. Euh, ne ma Fatou Ka bàyyi nitti li. daay nett waaw <laughs> ak ni mu ko waxee bàyyi nitti li léegi jeeg yi nitti li waaw nitti li <laughs> bàyyi ni tili <laughs> mais nag am na fu mu baaxee faatu mm, mm, mhm. mm, am na fu mu baaxee ak am na fu mu baaxee waaw du du duñu nuñ koy waxee centraliser la ah. décentraliser waaw ñëpp daal généraliser waaw d'accord Aliou Sow ne fi aw ma ko ma corriger sant naa <laughs> mais mais mais quand am na foo xam ne baax na fa mhm. am na foo xam ne baax na fa parce que nag nee nañ fen wuy defar mhm. moo gën dëgg gu yàq su ma xamee ni yow kii seen diggante dafa dafa dafa xawoon ñagas suuti ma ñëw ni ko ay déemu faatu ko lu rafet lim la waxal. faatu ko ku la bëgg la. seedooy rafet la wax ci yow. donte jàppaloon nga faatu ko boo ko séenee bëgg koo rey sa jàpp ko mu dëb sam noon day am déjà lu dégagé ci yow. danga naa ah am naa bette faat ko mais woo wax ci man lu baax. ay yow ni ko faatu ko woon maa ngi nage ci erreur que ni woon nit ku bon la et tout fekk na donc faatu ko nit ku baax la. donc toujours fen day fen wuy fen wuy defar moom nay defar rek defar. Fatou yàlla nañu yàlla mosal ci jéeg boo xamante ne. Ah. jéegu taskatu kër nga. jéeg bu yàq nga. tuddi yoroo jukkooy puso yor ju jukkooy lañ set. jéegu pétrole. jéegu paaka. corosène. Ah. jéegu paaka. Ah. jéegu lañ set. man mii toog maa ko wax xale baa ngi ni jàkkaarloo gi ku ci bàyyi nettali daal doo dégg dara amaana. te jéeg buy nettali jonge sa jëkkër defe naa ne jamono ji metti na metti goo xam ne tar tar goo xam ne góor ñi bu ñu ñëwee teeroo leen ndox. teeroo leen ndox mu baax jox leen ñu naan noppal leen moom moo gën nga jàpp sa dikka di ko nettali mhm. sa yaay lii la ma def sa papa lii la ma def ba kër gi tas dafa am loo xamante ne digg dafa xamante ne maanaam billaahi euh, euh, bët yi sax am na ñoom seen bët sax dañuy nettali mhm. dañuy bët ci boppam rek dañuy dañuy nettali ba soo leen xoolee sax nga xam ne ñii ay nettalikat lañ te am na loo xamante ne Fatou Ka mhm. fekkee da ngaa ci kër gis nga kër yi tas yëpp jeeg ju ndaw jee leen tas sëyaan yi sëyaan yi ñoom ñoo tas kër ji da ngay ñëw ma bokk ak yow nday ak baay nga nekk sama propre frère ma sekk yow jàmm ak salaam sama jabar bu ñëwee dina ruubee kër gi dina wëlbati kër gi ba sama xol jeex ci sama frère boo xamante ni kër mosumaa dégg ak moom waa jeeg jiy fen est-ce que jotoon ñu arrêté mënoon nga ne da ngaa ci kër war faa wane joŋe war faa wane féroce di sàjj di togg ci mën a di yàq ci booli boo bëggee doom ju baax di nga dëgg sa dëgg nu ndey tey dina am foo teg sa bët am foo teg sa làmmiñ ci lu dul fen géej gi fen jot nañu arrêté kër yi tas nañu frère ak sœur ñi ngi demante ay police papa ak doom ñi ngi demante ay police ngir lan sëyaan yi ñëw ci biir kër gi jéeg du wàlliwaan kuy wàlliwaan nag sa kër a tëggul yàlla na nga wàlli lu baax doy waar da nga da nga indi lu doy waar lu am solo parce que fi mu ne nii kër yu bëri yoo xamante ni tas euh, tas na bokk na ci li ko tas mooy ji nga xamante nii ñoo fa sëy si comme li ngay wax di nettali matin midi soir amaana sax des fois la ñuy nettali du doon du doon dëgg ay sos sax laa ko mën a wax moom moom lay doon ba tey jii nii ah, ñu daal di di di taxale frère ak sœur yaay ak doom xam nga euh, daal di taxale li nga xamante ne nii mooy frère ak frère sax comme li ngay wax tout à l'heure yóbbante police mel ni tous les mal te day dem dogalaat ci li nga xamante ni mooy doom yi ah, euh, nga gis euh, tey jii ni Aliou Sow ak coach bokk ndeyex baay du ñu laale ba day dem ba ñëw si seen doom yi seen doom yi tey jii nii ku si gis sa sa morom mel ni sa ay butit ngay ngay gis bëgg ko rey te loolu yëpp euh, mu ne facteur commun bi ñu am mhm. mooy ndaw si nga xamante moo ñëw sëy sa liggéey ba di sos di leen féewale faatu ko dafa am loo xamante ne yaa ngi koy def nga defa ni say noonu nga koy def fekk yow sa bopp nga koy def xanaa xamoon boo tëddee sa jëkkër may stressé wu wàcc ñëw xamoo am na xaalis amul xaalis nga nekk ci njagañaayam bi naan ko Aline Sow ko bon la kër ci nii la mel li amoon daaw démb Macky Sall moo téléphone Abdou Diouf patiti patita buñ ne Tamba nga ne bëgguma tàmbaa nga dem ba Saint-Louis pivoté fa jaar Rome di duu la ko dajale dama yàlla nañ ma baal ci kàddu gi parce que dafa am loo xamante ne ñi ma ko sañ a wax dañoo tas ay këri jàmbur tas nañ ay këri jàmbur jaxase ay famille yoo xamante ne waruñu woon mës a tàggoo sa yaay dee sa papa dee nga génn àdduna ma war maa uuf yow jabar toog def nekk na remplacer na place yaay. jigéen bu baax. te joŋe lool. remplacer na place yaay. nit dina ñàkk waay juram waaye soxna su baax bu ñëwee dina ko wuutu. dafa am góor jigéen ñoo xamante ne ci ñi ma ko sañ a wax maa ngi jéggalu bu wér nag ci kàddu yi nañ ma jëggal te xam ne nit ku nekk rek fi nga toll fa ngay waxee uhuh. dafa am ñu tas ay kër mu leer ñu ñu gis leen jàkkaarloog ñoom ba nday ak doom ak rakk ak mag ñi ngi dem di yóbbu demante ay police te jaru ko. Uh-huh. yàlla nañu yàlla moo ci jeg bon ku am sa kër day tàkk dootul fay. Uh-huh. dëgg la alors. Euh, Makhou euh, coach wala. Euh, loolu yëpp man damay jàpp ne éducation la. ñu <coughs> damay jàpp ne <coughs> la jokko jokko jokko. waaw yeggali yeggali rek. waaw mu ngi soog a ñëw jox ko. plateau bi laay bàyyi. ah yeggali fi nga nekk. ay waxaale yàlla waxaale jox ko rek addawu solo. taalal taalal. jox ko mu taalal la. non non jox ko. wala jaajëf aada am solo. waaw da cee am solo. jox ko mu taal ci joge bi la bokk de. parce que ki moom joge moo ko indi. waaw joge ci joge la bokk. waaw xale bu dégg français maa ngi. voilà jaajëf waay. ci ñëw ci li nga eh, nekk. Eh, ma ne loolu yëpp xam nga lan la. waati ngeen ma waaye itam. et éducation la. Mhm. gis ngeen nit nun la yaree rek ngay ñëwee ci li nga xam ne moom mooy sa néegu sëy. dañu mhm. waxante dëgg. nit da ngay bàyyi di nettali. Mhm. nettali baaxul ci góor ba am na góor yoo xam ne ñoo dàq nettali fi. góor waaw. góor nag ah bon non non dëgg dañuy boobu bees tàq boobu bees tàq la. non mais doo dégg nettali moo baaxul. loolu yëpp nag yàq xam nga loolu yëpp nag. Mhm. xam nga fan la commencé. Mhm. saa yu ma koy wax dama koy wax. ci éducation. waaw dama dama koy wax ci kër yi ñu may meree ñii di naan nii. Mhm. mooy que sa doom bi muy nekk xale suy ñëw di lay nettali. Mm. dégg nga freiné woo ko arrêté woo ko neew ko eh arrêtel bàyyil. bàyyi de non non. ñoom ñoo koy laaj sax. merci voilà ñoom ñooy laaj seen doom ne ko. waa démb bi nga demee ci tonton Aliou Sow. waaw foofu foofu nu mu demee foofu. waaw lu fa xew xale bi di nettali li xew na kër Aliou Sow. Hmm. loolu yaa ngi koy jàngal nettali. dëgg la. léegi nag loolu ngay màggee nag ba dem ba am jabar di nettali. Mm-hmm. di nettali di fen di jaxase day yàq sa kër. gis nga euh, gis nga kër. Mm-hmm. jigéen moo koy gérer. jigéen boo ñëwee ci kër bàyyil nettali bi boo bàyyi nettali bi ah yow sa sëy normal. Mm-hmm. bul indi parce que xam nga yéen jigéen ñi da bëgg moom dajaloo foo leen dajaloo rek jeex na am na koy dee. Mm-hmm. waaw ñu ngi yàq deram. dëgg la mm-hmm. yéen foo leen dajaloo. ak kaa lañ ko tuddee fan yi kaa dañuy kaa waaw. da di kaa. Mm. kaa rek ngeen fi nekkee. Mm. foo leen dajaloo kaa ngeen. Mm. di coppati loolu nag moom moo gaaw. mooy que nit bu ñëwee seet si la. sa kër waxtaan leen waxu àdduna. waaye eh, eh, eh, eh Fatka gis nga ko démb moom. waaw waaw li mu sol ak li mu gis nga ko moom daal ni nagam. dajaloo rek yaa ngi ci jagu yaa. dajaloo rek. Mm-hmm. loolu lay dëmm nag. Mhm. loolu mooy dëmm. waxal loolee dëgg la. loolu lay dëmm mais mais responsabilité. mën naa responsabilité ah. Mhm. góor ñi ci loolu comme li ma wax exemple bi ma joxee tout à mhm. jii nii nga nga nga nekk soxna euh, Aliou Sow Aliou Sow wax coach bokk ndey baay nga nekk si euh, nopp Aliou bi yow coach dalaa teg bët bëggula la bëggu di ko wax lu nekk daal. mais euh, tey jii nii moom est-ce que war na am matade gu toll nii di gëm li li ngay wax ba war a mën a xoolee frère am bëtu bëtu noonu. bonne question Fatou ko gis nga góor. na góore. góor day dëgër waaye këcc ga dañ ko caa soxla. këcc gi bu dee jonge nga. Ah, góor am na. mais këccaale waale yaale. këcc bi mooy dëgër këcc. këccaale waale yaale. non non këcc bi fan. bu dee jonge nga da ngaa war a dëgër këcc. ci biir ak ci biti. déggoo ma de ce néeg ba ak ci biti. bi waaw. këcc bi kon këcc mun naa say wax ak yow. dama ni góor day dëgër te it góor day góore. waaye góor day dëgër këcc. dëgër këcc gi mooy sama jabar non du ma manipuler ba yàq jaxase sama sama ah. propre frère. merci Mounass. du ñëw ci biir kër gi. Ah, bokk ak Fatou Ka ndey ak baay benn nit man Fatou Ka àddunaa may seetaan. Ah. du ma aw ma xarit te bëgguma xarit te du ko mës a am. benn copine rek aw ma ko. xam nga lu tax Fatou Ka dafa am loo xamante ni jikko yu nekk ci man xaw ma ndax mooy ki may fréquenté mi ci moom wala déet. donc dëkk takk nga ma ànd ci biir kër gi. ma ànd jikko yoo xamante ne yi ma sama yaay yare yi ma sama papa eh, ma ñëw <laughs> yi dañ ñoo war a dimbali ngir yàlla te yàlla rek a tax ah nañu jéggale mais c'est que li xew si suuf Aliou Sow mooy roube plateau bi daal ngeen mënu fii liggéey si jàmm ak salaam mais tamit nag est-ce que doo wàcc plateau bi ba ñu pare <laughs> munaas continuer ci li nga ne ko acam wala maxu munaas boobu chance la cest à tey euh, jikko dañuy wax ni ak borom pax mm. euh, en général te dëgg la donc olof daf ko wax mais en général euh, loolu da nga koy gis ni euh, bala ngay nit ki moom mën na la nëbb jikkoom si si si bi ngeen di génn si doxaan bi mais su ngeen demee ba sëy jikko yi day génn muy góor ke jigéen bi donc li tax bu jigéen bi comme thème bi am solo moom euh, mooy que ne jigéen bi sax góor bi mën na am nu mu mel mhm. wala mu ñëw famille bi am famille bi am nu mu mel mhm. mu fexe ba Euh, dajale mu fexe bay changer attitude yi di changer jikko yi. Mhm. mais loolu nag yar la mooy li coach wax cest à euh, bant moom bu xasee ba woow pour nga jubbanti ko day jafe. Mhm. donc tamit baax na peut-être euh, du jëkkër bi rek moo ko mën a jubbanti parce que am na fu mu toll et ba pare comme ni ñuy wax ni si affaire nettali. Mhm. nettali dafa doon li nga xam ne boo ko tàmmee soo amee information. non doo am jàmm boo am doo am jàmm te génn. doo am jàmm. léegi ba dem na information ba si li ni nga fanaan ak sa jëkkër. c'est-à-dire di non seulement di di nga ko di nga ko ñëw nettali si si si si entre jigéen comme ni nga ni ngeen ko waxee mais mën na am sax nga yokk si. Mm-hmm. ba tey ji mu am répercussion si si ñi nga toggal ñi nga xam peut seen seen seen seen góor. dëgërul këcc comme ni ko ni ko gars ni ko ni ko kii waxee ba foog nañu ni sax mm-hmm. fekk ni demewul noonu sax moom moom am attitude boobu moom moom mu am chaque fois fu mu toog rek di nettali. wala di wax li nga xam ni tey euh, euh, kiiwul léegi nag fii ñëw si li jaxasee surtout nag kër gi mu fekk ji ba bëgg ko tas nag wala di ko tas wala di ko euh, fexe ba nit ñi doomu bàyyi moo xam sa sa sa sa profet ba bi nga bokkoon ndey baay moo xam say say waajur yi nga xam tey ji na fexe ba tas ba tas ko loolu malchance rek lay doon dañuy wax ni affaire jabar kum kumpa la c'est comme xaal bi ngay jënd nga ni xonk naag xonqul am na suukar amul mhm. suukar genre kumpa lay doon léegi nag euh, malchance comme xal xool du tà du tàggoo mhm. mën nga tombe si ki nga xam ne malheureusement euh, jikko yooyu la am léegi nag euh, solution comme ni nga ko waxee li li ko mën a kii rek moom mooy ñi mu fekk si fekk ji parce que bu ñu demee ak moom tuuti dañuy commencé xam kii elle naka la mel léegi nag laa nga mën na nag euh, parce que nit ki ki lay jaaxal mooy ki xamoo nu mu mel mais boo demee ba xam nu mu mel mm. ba ñëpp xam ko donc bu ñëwee nettali dootuma jël baton bi wala may may dal sama sœur wala may dal sama frère wala donc kon maturité boobu la ñuy xaar. Mm-hmm. si ñi nga xam ni euh, ñoom lay fekk fekk ji. Ah, pour xam te xam ni rek. Mm-hmm. jaaf dina jafe de waxuma du mën a soppeeku de. Mm-hmm. mais dina jafe lool mu soppeeku. day jafe ci jafe googu laa laa lay siifee. Euh, xam nga lu tax day jafe. toujours thème yu mel nii mënoo koo wax te peut-être li ngay wax du xaw am tuuti ñagas ñagas moo tax du ma du ma du ma jóg ci naan ñu ma. kër yaa ngi toj mais mbaax nangu nga ni fen. maanaam papa ak yaay. ñoo koy jàngal seeni doom. dëgg mooy li ñuy wax. preuve baa ngi nii. dëgg la preuve est là. dëgg alors foo nekk sa papa en tant que yow père wàcc nga ñëw ci biir kër gi. Mm-hmm. papa foo nekk nga ne ko maa ngi buntu Pikine de maa ngi rond-point ba fee. sa doom day bu dee def nga ci moom yar. Mm-hmm. bu la xoolee day muuñ sëgg. dëgg di nga xam ni sa propre père day fen. Mm-hmm. lim la wax dara du ci dëgg. dëgg sa yaay ci boppam. war a ñulug cin ba sóor ko ñëw fii nga sa papaam woo ko ni la foo toll maa ngi ñëw damay ànd ak ay gan samay compagnie fa la ñuy añ si wala sóori naa te fekk waasugoo taalugoo jën yi mhm. c'est que yaa ngi nekk ay fo yoo xamante ni di ci fooye mais jàngaloo sa doom joŋe mhm. jàngaloo wala ñu lay fay su bor nga sa doom nekko nekku ma ma fi ba pare jigéen ñi mhm. encore une fois nañu bàyyi seen téléphone u jëkkër yi su sëy bu tasee yaa ko tas nanu bàyyi seen doom yi ñuy yabal que demal ma chambre à coucher ba xoolal ma sa pochette papa la fa nekk. Mhm. yaa ngi jàngal sa doom fen mhm. Mhm. seetal ma sa papa fan la demoon. sa papa jàdd na oto bi fan la ko gaare. yar bi yaa ngi jàngal sa doom fen loolu mooy yar bi. yaa ngi jàngal sa doom fen nañ ma baal. mais dafa am loo xamante ni doom bu jigéen jàngaani woon ndayam mooy royukaayam. man de kenn du sama idole ku la joxate ka ba yéri ma yéri borom jéem a suudu borom. sama yaay seen yaay ju baax jooju ñu ngi koy nuyu kese parce que xam tax. Uh-huh. bul wuti référence. jël sa yaay mi la nàmpal mu doon sa référence. Uh-huh. yu ba xam nga daal di baax pap gis la takk la mhm. waaw bu fekkee jikko jëm def ci yow moo tax mu gis la ba doy la takk la mhm. waaye jikko ji taa aasi def ci yow lan moo tax faatu ko sa boo màggee doo def ci say doom a dajee ak yaay ju yaay ju yaru mhm. loolu moo ci am solo merci beaucoup ay ca munas donc ñu ngi lay euh, jaajëfal bu